mandat parce que mm. constitution waxul loolu te sénégalais font faluñu pour un mandat de 5 ans Mon conseil conseil moko wax mais conseil conseil moko Boko boo bu ko ni que amul droit wañi mandat. mais tay mom ana fan la est-ce que amna droit yoko mandat? est-ce que amna droit yoko mandat? donc na na na de conseil constitutionnel ko moom ah bon donc da nga jàpp ni président dafa bien sûr conseil constitutionnel. déglu ko conseil conseil du mais euh, à travers sa déclaration nee na. convoqué na euh, les conseils convoqué na aussi les collectivités territoriales convoqué na convoqué na convoqué na. mais convoqué au conseil constitutionnel. C'est un propos de di di di samedi di samedi passé. Hmm. est-ce que dégg nga ci gémmiñ président de la République mu ne la convoqué na conseil constitutionnel. mais ñoom lañ accusé. mais le dernier mot revient au conseil constitutionnel mba mom mu pas fateliko ni conseil constitutionnel bobu moko newon amul droit amul droit wagnu est-ce que mom mu koy fateliko hmm. mais na delu wat conseil conseil mom mu degluko ndax dina ko ne am nga droit yok sa mandat même si c'est ce un seul jour ou une heure mais comment on peut augmenter le mandat du président de la République 10 ans comment de 10 mois 10 mois de la fin de son mandat nous yokati 10 mois te moom moo taxaw Abdoulaye Wade amul droit yok même benn fan. ci élection est-ce que mais est-ce que dina am 15 décembre sax parce que dégg naa euh, vieux Thian mu certes euh, le 15 lañu ñu acté. mais président génnagul wax si le 15 bobu non mais mais xam nga euh, le 15 bobu non wala tombé aussi les fêtes de décembre et tant d'autres et tant d'autres. xam nga seigne bi avec ce régime là. on peut tout s'attendre. voilà on peut tout tout tout tout tout s'attendre. Hmm. nee naa la même buñu égué le 15 décembre bobu ñu wax mën na jaaraat assemblée nationale ne leen yor prolonger leen ko te ñoom comme ils sont là pour ça ils vont le faire mën na jaaraat assemblée nationale ne leen man je veux être là jusqu'en 2030. mille trente PDS ànduñu si PDS ñoom lu ut lañ prévoir dama ne ne leen ànduñu si le quinze bi dama ne PDS PDS PDS lu mu mënta wax sénégalais duñ ko tenir en compte parce que PDS a, euh, béy wuy béy wuy na mbuus ba pare PDS amul ñëwaat ba wax nit hmm. ils ont piégé une fois les Sénégalais d'accord ça a passé quand ils ont dit que ils vont faire l'intercoalition yéwi Sénégalais adhérent Pour ci pour xagn président de la République majorité mécanique au niveau de l'Assemblée nationale Sénégalais jox PDS lu ñu mësul hmm. am hmm. ci Assemblée nationale PDS Sénégalais ils dañ ko fal ci ay base yo sénégalais dañoo jappali pour wagn mm. loxoy président Macky Sall. parce que mm. dañ ko jox ay pouvoir yu maintenant, il faut qu'on ñu intégrer cette idée de l'intercoalition, mm. pour que les députés de l'opposition, aient ñu une majorité écrasante au à l'hémicycle comme ça loi bu ñu bëgg jallalé comme ces arts de loi là comme yu ñu jallalé barke demb ñu mëna ñu baña jall mais PDS a trahi le peuple sénégalais c'est ce PDS là qui a trahi le peuple sénégalais Moi, je PDS fi ils ont choisi de mourir politiquement le PDS a choisi de mourir politiquement. alors c'est clair c'est clair. xam sénégalais c'est clair sénégalais sénégalais fay garder. alors alors mais attends concrètement cour suprême. 48 euh, heures euh, donc tay tay tay cour bi war na di wolu meuna jot par rapport à ce que xam nekk moo décret. dama parce que l'UST weesu 48 heures dina épuisé. dañ koy yóbbu foofu té loi 48 heures la pour ñu le PV au niveau de la cour suprême. cour suprême meuna valider ce vote là. Mm. mais moi, mané buñu tatchu tàccu ni vote bobu validé nañu ko. jeex na le vote sera validé ou pas par la cour suprême té ba paré ñom décision de l'Assemblée jël assemblée nationale. Hmm. c'est n'est pas la décision finale. Hmm. sénégalais il faut que ñu xam ko. c'est pas la décision finale la décision finale revient au conseil constitutionnel. conseil constitutionnel mo meuna a wax ndam Macky Sall amna droit wala amul droit c'est ça la réalité. Hmm. Ah. conseil constitutionnel boobu moo ko ne woon amul droit un mandat, hmm. mom mo taxaw encore une fois mom le ñuy déglu ba xam dina ko ne am nga droit yok sa mandat alors parce que euh, l'article L103 du du conseil du comment de euh, de la constitution Moné, nit amul droit yok mandat présidentiel amul makama hmm. nit amul droit yok mandat mandat parce que le mandat est sacré amul droit un mandat amul droit yok mandat c'est l'article 103 de de la constitution moko c'est l'article L92 de la constitution Moné. conseil constitutionnel mom cote lañu droit may droit bobu bu xasee ba addu ci mbirum élection amul jaxna na amul droit def recours pourquoi ñu yóbbu ay recours assemblée nationale assemblée nationale dafa nationale a toxal élection nañu baye tiaxan alors ñu à la raison. alors communiqué bi maître Keledor Morodadi, def depuis son lit d'hôpital fa Allemagne alors maître ñu koy ñaanal a baax tan alors donc ñu aussi qui ki que maître Keledor Li, euh, euh, l'étonnement et l'horreur s'emparent de nombreux Sénégalais face à l'attitude du chef de l'État. Fidèle à sa doctrine de maintien au pouvoir et de euh, parénisation d'un système marqué par la prédation, la vassalité et la répression, jàpp na ni itam jamono ji Sénégal yi doon daal di nekk si li nga xam ne que moo di sip euh, euh, sëngéem euh, par rapport ak président li nga xam ne itam bëgg na ko daal di toog ba tey si li nga xam ne que moo di pouvoir bi ma daa jàpp ni itam boobu de li nga xam ne que moo di posture du doon lu bees si moom exactement ki nga xam ne que moo di métti la dox ma daa jàpp ni depuis deux ans fii si Sénégal nag ñu fi daal di amal lii par rapport ak répression waaye itam par rapport ak benn arrogance bi nga xam ne itam suñu ay force de l'ordre et de sécurité ñu koy daal di amale ni jëmale si li nga xam ne que moo di askan lui wi loolu lépp nag si complice li nga xam ne Europe Amérique ak Sénégal euh, yu chef euh, d'état Afrique notamment euh, fi nga xam ne Afrique de l'Ouest métti la dox daal di jàpp ni dès 2014 euh, la li nga xam ne que moo di état de droit fii si Sénégal jàpp ni itam fu mu toll nii le mandat moo fi euh, am te suñu moytuwul nag loolu dina daal di woon a yóbbu euh, si le mandat à vie maanaam président dafay daal di toog ba bés bu ko neexee mu daal di dem lépp daal di koy tënk si li nga xam ne que mooy benn dialogue politique bu fallacieux ak bu complotiste métti la dox loola daal di xamle loola waral ki nga xam ne moo di mu ne Ousmane Sonko demul wuyu ji li nga xam ne moo di le dialogue bu. ki n'a xam comme président Macky Sall qu'elle euh, adore aussi mu daal di jàpp ne lu nu mel coup d'état institutionnel bi n'a xam ne itam mi ngi daal di dox fa assemblée nationale ni ki n'a nga comme ne que mars 2021 ki n'a xam comme que moo di euh, euh, Maître Clédor mu daal di jàpp ne ñu daal di lever une immunité parlementaire sur dul par rapport à une majorité bi n'a xam ne assemblée nationale mooy li n'a xam comme que moo di lever immunité parlementaire bu ki nga xam que Ousmane Sonko que l'on ne s'y méprenne pas euh, ce peuple reste fidèle et n'a pas plus euh, à abdiguer euh, car il est uni à son leader par un amour sincère et pur Moral daal de Kubina, dëkk bi nag dina xam nekk moo di askan wi amatuñu lu li président Mixal, Sall il faut que nous daal responsabilités. moom ki nga xam nekk moo di maître daal di jàpp ni Ousmane son peuple sont liés par ki nga xam nekk moo di Ousmane Sonko dafa daal di dikk euh, li nga xam nekk moo di benn programme boo xam ni itam kenn xajul seen ko diggante euh, jamono jooju nag ñu daal di war a mën a résister par rapport ak parjure des magistrats maanaam ne xam ne itam ñoo daal liggéey si état bu Sénégal te dara euh, ñaru leen dul daal di war a mën éliminé euh, ki n'a xam que Modi Ousmane Sonko jëmale si boobu dina xam que Modi présidentiel présidentielle maître Clédor mu daal jàpp ni fum mu toll nag institution bu nekk war na daal jël ses responsabilités daal di def sem képp katan ndax li n'a xam que Modi di askan wala na ko daal di war a mën a layool euh, après euh, fa n'a xam ni itam moo di saanuk suñu boxoom moom jàpp na ni le pouvoir exécutif judiciaire ak li nga xam que Modi le conseil constitutionnel danoo nekk du jouer pour li nga xam nekk moo écarter mon mandat de la compétition bu yàgg nag la jàppoon qui ki nga xamne que modi exécutif bi judiciaire ak conseil constitutionnel est nekkoon du joué euh, pour dadi li nga xamne ne que modi di Ousmane Sonko mu daal di bokk jëmale euh, si li nga xam ne que moo di présidentielle 2024

Euh, une échéance ni interrompre un processus électoral fixé par la constitution et régulé par la loi japonais na décret nak euh, mënta daal di coppi li nga xamné que modi euh, justement mm, élection way tam def ko comme ni que askan wi daal di bëggee mu daal jàpp ni boobu décret dafa juk rek pour daal di mëna li nga xamné que modi état de droit au Sénégal mom japonais ni tam bobu dañ nga xamné que modi enquête parlementaire benn mascarade kase la waaye itam loolu du daal di li nga xamné que modi wëy mu demeure

waaye itam japp na ni client am di ki nga xamne ko modi moo di Bassirou Diomaye mi ngi li nga xamne ko modi moo joueur de sa présomption d'innocence ak casier judiciaire bu vierge manam casier judiciaire bu amul dara loo xam ne tam daldi di war topé en définitive mu daldi japp ni la violation d'un serment constitue en une haute trahison

se euh, dissipera. Le baobab sera déraciné avec toutes ses racines et l'oiseau plié se redressera historique pour une nouvelle ère. Le pays doit rester une démocratie ouverte et un arbre de paix à laisser entendre qu'il nga a que que di euh, Bassirou euh, Diomaye Faye nga ma a que nag justement par rapport à quoi lui donc on a dit xam depuis l'hôpital, en hôpital enfin Allemagne Il la daal di ñaanal tan bu baax alors enfin, euh, bonne analyse nga def à assemblée nationale li Goulet parce que 2021, le le de l'humilité parlementaire sous lu diable yoon étant d'autres étant d'autres li nga xamni ne comme ay incurrence par rapport à cette majorité bi nga xamni tam mi dicter ses lois alors euh,